jumule est-ce que du nit dof bu ko waxee ne leader yi en tout cas xam naa ne dinaa jéem a jël ñi nga xam ne ñoo fi nekk jël li nga xam ne mooy les leaders jël li nga xam ne moo fi nekk di xew ngir ngeen mën a am lépp loo xam ne mooy di information en temps réel niñ ko waxee ne jamono biñ toll nii su ma jumulee est-ce que nekkul ne nit dof moo nekk noonu dañuy rafetlu acte bi dañuy rafetlu niveau bi mu yóbbu la politique niveau de conscience bi nga xamanteni jeunesse bi am nañ ko aussi niveau d'engagement et d'implication, implication bi ñu am si seen parce que personne pouvait imaginer que bis dana ñëw ay meeting yu melni di am nit ñi di jugé ces régions yi di paas di dag di cotiser sen xaalis c'est une façon d'éduquer euh, notre notre population et on a une jeunesse bo xamanteni si ni pare na pour lolu cette jeunesse là est à saluer donc ñun on est vraiment fier de participer à tout ça d'assister à tout ça parce que ñun aussi suñu engagement a toujours été de conscientiser la, jeunesse tey bu ñu ba gis une jeunesse euh, consciente à ce point de se déplacer ñëw nous, bu mel nii ak euh, les conditions fu ne ñu jóge ko ci Sénégal génne seen xaalis def c'est une façon de montrer aussi euh, l'honnêteté des dirigeants parce que tey boo nekkee aussi au pouvoir nga mënoon a sëq ci ce gi kenn du ko yëg comme ni ko ñu bëri daan defee nga ni ñun duñ ko def comme ni moo ko waxee dañu nekk di jàngal adduna bi weesu Sénégal on est en train de montrer au monde entier nous avons des politique aussi on est en train de montrer au monde entier que nous on est un, grand peuple très mature. non man en mais je en tout cas Sénégal d'autres comme nous connaissons pour di défait lépp lo xam ne mën naa ko def naa ko te jeexalaguma fu ma mën a maajaali dinaa maajaali doole ko ci kees. ñu ngi ko malmené si nga ci ne ci mo ci parquet ñu daal ko fay arrêté mom ak ñen ci opposants yi nga xam ne ñoom la daal di woon àndal te ci ñen ci opposants yi daal dañu lancé fa wa ku bëgg lancer lancé cagnotte na lancé cagnotte cagnotte kenn moomu ko du léegi après après l'histoire de de parle même pas de lui mais euh, y a un protocole bu am fofu euh, sur place parce qu'il y a le président qui a fait sur euh, le c'est la priorité président de la république Il y day un protocole boo le ni euh, il ne faut pas provoquer il ne faut pas politiser ay situation il xamante drame y a des morts il y a des euh, sinistrés yu ce si tu diggante yu mel mais pour personne dem aussi pour personne aussi pour créer un peu en tout cas la polémique ou créer un peu le désordre les forces de l'ordre sont obligées d'agir euh, de manière républicaine. Donc on comprend pourquoi il a été euh, arrêté et on sait qu'il sera probablement relâché. Mais il faut éviter de, politiser des situations comme ça. Et puis, la République, le président, on parle du président de tous les Sénégalais. Il y a un minimum de respect. Donc, il faut, en, en tant qu'opposant, tu te plies à ça. Après, tu a ce jour pour que tu aies faire. Mais si tu veux, avec le président.

xam aussi le projet bu livre bi ñu def ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye couverture tout le monde sait que xam nga ni projet depuis longtemps le projet bi nak gagner gagné les élections maintenant da ngay jël les vrais chiffres la réalité du terrain nga teug ko les chiffres yow sa programme nga ko par rapport aux les chiffres yi fi nek lolu le travail bi nga tu vas appeler des experts nga liggéey ci ak après nak bép idiot ak bép débile bu bëgg def de la politique c'est un problème mais je pense que la masse la plus importante des Sénégalais sénégalais ont compris que plan Bini si suñ euh, euh, mettrait en œuvre sénégalais yëpp jàppale ko mooy que y Sénégal que Afrique et nous ce que nous ce que nous saluons le reste ce n'est que euh, ay baratin quoi voilà. Mohamed Mohamed ba les information les leen